waa Pharma Nature ñoo leen di may seen revue de presse yéen ñi nga xam ne bu ngeen di ànd ak seen soxna da ngeen di gaaw a yegg éjaculation précoce wala impuissance sexuelle wala nga sëy lu yàgg mënuloo am doom wala siti bu yàgg sonal la wala hémorroïde wala diabète jokkoo leen ak waa Pharma Nature rawatina yéen ñi nga xam ne bu ngeen di ànd ak seen soxna da ngeen di gaaw a pare wala ngeen di gaaw a sonn wala seen kanam tuuti ngeen bëgg ñu yokk ko jokkoo ak waa Pharma Nature si ay yoo xam ne fii la ñu ko liggéeyee si réewum Sénégal fépp foo xam ne mbokk maa nga fa si àdduna bi mën nga see jot si anam bu mucc ay Pharma Nature seeni garab 100 pour naturel la du am effet secondaire jokkoo Agua ak waa Pharma Nature double 0 221 77 457 57 62 jërë ngeen jëf ñu ànd xëy yër yéene kaay yi nga xam ne moom la ñu xëyandoo njiit réew mi di Macky Sall bala muy waxati war naa waxtaan ak li nga xam ne mooy ñege naayam doog a wax ak askanu Sénégal lu jëm si Sénat bi nga xam ne Macky Sall moo ko jële woon si réew mi waxaan da koy andi ci réew mi loolee tax ñu bare bari loolee metti na leen bokk na si waa Yaana Mar ñi nga xam ne ni ki mu ñoo jàkkaarloo ak taskanu xibaar yi waa Yaana Mar la ñu xam le fi ma buftu bi wala suuf si jëlaa du ñu masa nangu Macky Sall di andiwaat Sénat bi ci réewum Sénégal waa Yaana Mar la ñu xam xamle ni ki démb ba ñuy jàkkaarloo ci dara lu leer coupure courant yi nga xam ne suba ngoon guddeeg bëccëg kuy xamat réew mi a gi nga xam ne jamono ji dara baaxu ji moom la ñuy jàmbat pénurie yene kay ki wayana mar lañ do yokkat moy lu jëm ci walum dundu ko seer gi nga xamne Macky Sall lam ci agas ko no Senegal ba léegi ni defu ci dara ba dara pola wayana mar ci yene kay ki de la populaire xëy tënk kàddu yëpp ne Macky Sall waxam ji waxi picc la bëgg neexal nak ñi nga xamne ñoko jappalé ba mu fallo lolé mo tax Macky Sall bëgg fi wat li nga xamne moy bi way duñu ko nangu tay duñu ko nangu ëlëk yene kay ki de la populaire Ibrahima Sène bu peyité lamu mu moy xel ci bop mo mënul nangu ñu wat Sénat bi ci réewum Sénégal 23 patriotique Cheikh Sadibou Diop la ñu xam le Macky Sall la warul forcé askanu Sénégal li nga xamné moy mooy Sénat bi begg bëgg askan yi mën la fénal la nek ailleurs Fadel Baro lamu xamlé moy may leen mama yak la njiitu réew mi di Macky Sall mëna a la wër na Sénégal gi gépp si région yi def ay conseil des ministres décentralisé Macky Sall di ga ay milliards te ba légui ni gisuñu sa dara dara gisuñu ko Macky Sall nak manam bëgg nañu xama Khalis bi nga xamé tin doon na ko négocier ci lu jëm ci groupe consultatif bu Paris Macky Sall wax ñu sa dara nak Khalis bi nga xamné moy dugg ci lu jëm ci walu visa yi nga xamné ku dugg Sénégal mom ngay amé ana xaalis booba Macky Sall fun la jëmee Sénégal loole la ñuy laaj te du samay kàddu kàddu yi Fadel Barro la bu yaana maar la populaire Mamadou Mbodj coordonnateur M23 la mu xamle mooy njiitu réew mi di Macky Sall defar ay mbiram ci lu jëm ci wàllu politique loolee rek moo tax Macky Sall di wax ci lu jëm ci wàllum Sénat bi Sénégal gi nga xamante ni maanaam pauvre na maanaam ndóol na ba maara day tali ak Sénégal gi nga xamante ni dafa bëri bor ba maara day tali ñu ñuy wax waxu Sénat observateur wax ci ajog Macky maanaam nag gis nga nag lu leen wax am na ci réewum Sénégal bu leen ko bu bona bon mafia bu rëy moo am ci ajug màkk ke yéene kay gi am na ay billet yu bare bay ay billet màkk yu bare bare yoo xamante ni waa présidence ñoo ko may ay nit ñoo ñëw wër di ko jaayaata yéene kay gi ne xam nga gis nga stade Léopold Sédar Senghor bu match amee maanaam ñi nga xamante ni ñooy jëndaat billet billet yi di ko jaayaata noo ni la ajug màkk gi mel jamono ji manal mën a la est-ce que yëg na ko l'observateur mooy wax la mu xam le a lu si fukki béy màkka yéen kay gi de Le mu ñu xamal ñu ajug màkka geek maanaam ujaaj yi nga xam ne lu toll si ñetti fan yoo xam ne bloqué nañ leen fii si réewum Sénégal mën na lay gis nga mbir mi doxul ren de kay gi mu ñu xamal ñu mbir mi doxul si Pape Aliou Diassé la mu xamle mooy dëgg gi dana mos a ñëwaa ah. maanaam alalam ji moo ko liggéey sa ñaq boppam jamono ji nag feebar na waaye du tee day dem ba jeex ma dem si Sud Quotidien mu ñu xamal ko tuumal na SA Karim Wade moo ko moom waaye turu Pape Aliou Dia rek moo ca nekk yéen kay gi du l'observateur njiitu mi di Macky Sall teg na ni xeeru cité émergence néew pompier yéen kay gi mu ñu xamal laa ñu lu toll si ñaar fukki milliards ak benn lañ say def ñaar fukki weer ak ñeent la koy liggéey le populaire liberté d'expression jeex na ci réew mi waa APR ni ki démb sa cité a avant njiitu mi di Macky Sall di ñëw mécaniciens yi nga xam ne ñoo fa nekkoon bëgg leen foo xam ne danañu a dugg mën a la gis nga APR ñoo leen fa fekk dóor leen ba ñu nër dóor ba ñuy bëgg dee yéen a kaay gi de la turbine mu dikkal ñu si nag li tax Macky bëggul li nga xamante ni mooy secteur privé bi secteur privé bi nga xamante ni daal moo nekk fii si réewum Sénégal Macky Sall bëggu leen au lieu que Macky privé bi nga xam ne ñoo nekk fii Sénégal ailleurs feneen la Macky Sall itam ma dem ci observateur fekk fa Alpha Condé njiitul Guinée Conakry la mu xamle mooy Macky Sall la ko waroon nag mooy muy saytu lu jëm ci aéroport bi moo gën muy tëj ay frontière ma a kaay mu ñu xamal la Omar Sarr bu parti réew mi jamono ji diggante ma ngi Idriss Seck na Omar Sarr mën na la tekki na ndombal tànkam ci ci ci ci lépp loo xam ne jëm na si fonction yi si biir parti bi Omar Sarr jamono ji simple militant la yéen a kekki mu ñu xamal la ñu parti réew mi ba Idriss Seck jamono ji musiba moo leen dugg la ko waral nag mooy gis nga Déthié Fall mi nga xam ne moom la jël toftal ko si Idriss Seck mën na la gis nga gis nga gis nga loolee lu toll ci juróom-benn milliard la Abdoulaye Wade di jël dugal ko ci suufu ci suufu roppalaan bi direct info mu ñu xamal la ñu diggante bi ñu doon wax naan diggante Aminata Touré ak Macky Sall seen diggante neex na diggante ba neexul de diggante ba neexul de barke Rasulaay Walf Fadjri yéen a kaay mu ñu xamal la ñu nag gis nga woy yéeg bande yi bay boo ñu def attention nguurug Sénégal jamono ci dem na sa Chine ngir commandé ay armes yoo xam ne toroxal doomu aadama moo ko tax a jóg mu jógee foofa ñëw ci yéen a kaay gi de l'Observateur ak Le Populaire mu ñu xamal la ñu Binta Mané mi nga xam ne rayon nañ ko fan yi la ñu génn sa asalem angle Moussa ka ko rey jàpp nañ ko yéen kay gi di la populaire mu ñu xamalal ñu ka ko rey mayaa seen jóob leen tudd laa seen kay ne caareelu dëkk nit ki dem ba ñeenti waxtu jot la ñu ko jàpp fi nga xamante ni mooy Pikine Texaco waa ji nag la tax ñu jàpp ko ab téléphone la jaawale ak téléphone Binta Mané yóbbu téléphone Binta Mané bàyyi fa ab téléphone am sunu borom bu la bëggee weer <laughs> yàlla mën a weeraate